may nuyu itam les coordonnateurs communaux ndax ñoom depuis 2017 ñu ngi ci liggéey bi ñu jàpp rek ma di leen ñaanal yàlla na leen yàlla fay tous les coordonnateurs communaux ak les bonnes volontés yi nga xam ne ñoo nekk ci commune yi di doxal liggéey bi ndax bu ñu tolloo fii tey am na nag ku ko waral te bu ñu demee ba toll fii foog ñu wax ñuy def mention spéciale à docteur Omar Cissé. honorable ndax dañu ni feccum liir bu neexee nday jaatee ca mbagg ya metti woon na ñu nekk juróomi nit si initiative 2017 docteur Omar Cissé bàyyiwul jàpp ñu bloqué ay comptam yépp de 2017 à 2019 kat ku ko waraloon Khalifa Ababacar Sall Khalifa ne si kaso bu mu metti yéen waa Tëngéej loolu yéen yëgoon mais Omar Cissé ñu bloqué ay comptam mënul liggéey bloqué kay yak leppam mënoon na dem ta demul il faut que loolu ñu wax ko ñepp xam ko man suma téwé docteur Omar Cissé dafa am lu tax ma téé ko parce que dama xam lu bari muy gor di garmi d'abord nuyu sama grand frère Paté Ndiaye ndax ay wéré a ngi ni ñu ngi liggéey ensemble ci lolé mënul imaginer sax au niveau national di nuyu la coordinatrice départementale de taxaw Sénégal madame Assou Dial di ko sant ci wax yu généreux yi mu wax ci man mais mënoon naa wax lu ëpp lu ëpp loolu ci moom su ma ko nuyee nuyu nuyu naa tout tous les coordinateurs communaux yëpp ak coordinateur coordonnateurs départementaux yi ndax adjoint ma ngi fi Cheikh Samba ngi fi ndax ñoom ñoo organiser tey séminaire bi di nuyu li ma gën a neex ci séminaire bi fi mu nekk nii yéen a ngi conférence des leaders à l'échelle départementale parce que loolu mooy suñu objectif dinañ ko installer finaliser ko à l'échelon nationale, mais dañ koy am département bu ne ndax dafa am ci département yi bien sûr le doyen parti mi ngi liggéey au niveau de la coordination nationale mais ci département yi da ngay gis ay kilifa bàyyi li ñu li ñëw di liggéey ak taxawu ci élection bi ñu jëm moo tax maa ngi rafet lu baax te waayu président Modou Sall Diop xam naa bu baax bi may liggéey ak moom yàgg na trop xam naa taxawaayam xam naa pas-pasam xam naa aussi fi mu teg tànkam ci Bambilor ak feneen sax kon maa ngi koy nuyu di nuy aussi yeneen alliés yi nga xam dañ fi taxaw ku mel ni Demba wax nañ ko sànq MDIR nekk fii à l'ouest am fi taxawaay bu ñëpp gis di nuyu bien sûr Souleymane nga xam ne Rufisque Rufisque d'abord la mais bokk bokk tey ji rejoindre plateforme taxaw Sénégal pour liggéey bien sûr tey mën nañ ni nga Gabé Mboy moo fi teewal ñëpp ñi nga xam ni bu doon bu doon xalifa élève la dañ naan ñi jàngandoo ak moom yëpp moo leen fi teewal ndax buy waxtaan ak xalifa seen parcours il y a 60 ans lay wax te kooku maanaam dafa fekk lu bari ak xalifa bu fi teewee rek ñëpp ñi xalifa jàng bokkoon bokkandool di yëngatu ci politique ba léegi teew nañ fi maa ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu di sargal yéen ñi jóge ci coordination communale yi yëpp yi teew fi taxaw di plateforme xam nga bu ñu plateforme dafa am lu mu tekki il faut que ñëpp comprendre lu tax ñu ne plateforme la li tax ñu ne plateforme moo tax doyen Pathé Ndiaye nga xam ni PDSR le créé di ci yëngatu à l'échelon national ñëw ni bokk naa ci plateforme moo tax Umar Cissé mi jiite vision ñëw ni bokk naa ci plateforme bokk ci ñi créé plateforme bi ndax plateforme bi comme ni ko Astou waxe waxee bañ koy créer ñu bari xamuñu fooguñu woon ni mën na dem mën na dem kon boo ñëwee Tëngéej di nga fi fekk parti di nga fi fekk vision di nga fi fekk bien sûr wa PD wa PS des valeurs ñi nga xamni parti socialiste lañ jóge and ak président Khalifa Sall ndax valeur yi mu incarné force taxaw bokk na ci li tax mu nekk plateforme il faut que nit ñi comprendre loolu bokk na li tax mu nekk plateforme mu tax muy am force tey boo gisee sunu mbokk waa LD Debout yi ñëw depuis longtemps liggéey ba ñëw ànd ànd ak président xalifa Sall xam nga lu tax ouverture bi xalifa Sall mën a mën a ni mu mën a liggéey ak ñu baree baree baree bare bien sûr ku ko xam xalifa Sall xam ko trajectoire parti socialiste wante ba mu ñëwee ba 2014 bu 2009 ba muy créer taxawu Dakar ñi ngeen ci gën a ràññee jógewu ñoon parti socialiste am na bokk ñu ci bari ñu jógul woon parti socialiste liggéey nag waa ñoo xam ni LD lañ jóge liggéey naag ñoo xam ni euh, AFP lañ jógee loolu fas loolu loolu indi presque plateforme taxawu Sénégal parce que kii mën na liggéey ak ñu bari ndax ñi muy liggéeyal nag dafa am lu ñu bokk benn xam nga boo socialisme ou un parti socialiste faisons attention communistes y a anciens communistes yi ay socialistes socialiste, parce que valeur socialiste je ne le parti socialiste parti socialiste am na solo C'est une trajectoire là, mais valeur socialiste yi sont bokk ak ñun dañu bokk des valeurs socialistes dañu bokk ak monde, donc ay valeurs humanistes ndax avons humanistes. Khalifa xam humaniste la humaniste donc dañu am ay des valeurs de gauche motax tax ànd ak xalifa yomb yéen nag baax ma gën ko firndel en 2009 khalifa ànd ak waa Benno Siggil Sénégal nek maire maire de Dakar boobu ba légui man en tant que boobu dama ne en tant que expert Mais xol li muy def may xol jéego yi muy teg. En 2014 2015 ma ñu en ak mom j'ai toujours été quelqu'un qui s'est opposé contre au parti socialiste mais si dama gis une personne a une ouverture une am vision humaniste qui a départ ci ci pour le tabac mi ma en train de laaj kent avem ma ñëw teg sama loxo diko daanaka bi may ànd ak moom jamono ji nga xam ni gën na fës ci ànd bi ci lañ ko teg loxo ma gën a féddali nag li tax ma may ànd ak moom ndax booy ànd ak gor ba ñu teg loxo foofu nag lu ma doon def benn naa ko def cent boobu ba léegi ma bokk ci ñi yore taxaw senegal ci senegal yàlla dimbali ñu ba tey jii departement de Rufisque loo mënti wax ci taxaw Sénégal ko boo jiitelee kenn sax teg ci département de Rufisque kon yéen ko liggéey yéen. yéen waa département de Rufisque yéen a jëmmal taxaw Sénégal ndax boo ñëwee département de Rufisque di nga fi fekk vision ñuy liggéey ak waa PSD valeur di nga fi fekk les amis de Khalifa di nga fi fekk MDIR di nga fi fekk. waa PDS ñëpp ngi liggéey la main dans la main lépp pour jëmmal taxaw Sénégal kon yéen yéenay laboratoire taxaw Sénégal parce que bo leen feet fàttalikoo bu ñëkk ba bu ñuy wax taxaw Sénégal li ñuy njëkk wax mooy taxaw Dakar am na ñoo xam dañ daan juum sax naan taxaw Dakar taxaw Dakar ñu leen déedéet du taxaw Dakar donte taxaw Dakar bokk na ci li ko jur mais du taxaw Dakar taxaw Sénégal bañ ko waxee Tëngéej jëmbal na ko département du fisc on a ni que ñun la main dans la main taxaw Sénégal aspiration bi Sénégal yi am ci mom mën ko mottali. légui nak ñu ñëw ci séminaire bi ngeen organisé vraiment damay féliciter coordination départementale bi coordination communale yi féliciter comité scientifique bi féliciter modérateur bi master of cérémonie bi yeen ñëpp li ngeen def ni xam nga lu muy seen vision da ngeen am ay avant-garde avant-gardiste ngeen ndax démb rek lañ commencé wax wax ci parrainage bi te yéen bi ngeen jàppee seen séminaire bi avant lii la séminaire bi mooy séminaire bi gën a bien placé ci liggéey pour taxaw Sénégal c'est le meilleur moment pour organiser ce séminaire là. amul moment bu amul moment bu ko gën a propice parce que ñu ngi doog wax prix on est à cinq mois de l'élection présidentielle. Cinq mois. Départ Nous avons organisé ce séminaire pour voir qui lan Nous avons fait depuis élection locale yi ba bonne ne bonne stratégie di pour réussir de façon parfaite le parrainage citoyen de la Russie nek lan ban gis-gis ngeen am ci projet de société wu président Khalifa ababakar Sall ça c'est extrêmement important man naa ci nak si naka ngeen di def ba mobiliser ñepp ñi nga xamni am nañ ci président Khalifa am nañ yek sur les valeurs citoyennes et de gauche que ñu partageons nak ngeen def ba mobiliser leen naka ngeen def pour communiquer askan bi c'est le meilleur moment pour organiser un séminaire pareil kon lenn rek mo dess élection locale fal ngeen ñu ñu ngeen député mais il reste la grande l'autre élection c'est l'élection présidentielle comprenons la signification élection bi oui Omar le maire de la ville mais un maire taxaw un maire oui, Omar Sissé est député à l'Assemblée nationale mais sur la liste Yewwi et un député Yewwi Ni jiite rek ñi jiite Sénégal tey nous duñ ñu yombalal dara dara dara dara dara dara Ma moo xam ci ci ci defar dëkk bi moo xam pour defar Sénégal Wa kon ku fal Omar Cissé maire ville fal député wu Yewwi Askan Wi fal député wi taxaw xanaa am nga yaakaar ni waaw lii yep, yéen a ji yëpp boo bëggee mat nooy def mais suñu le président bi suñu le président bi Li bi jaaw ci at mi dinañ dinañ ko gën a bi jaaw ndax da ngay jëma xol ñi nga xam ne ñu la jamm noy noy noy liggéey ak ñom noy parce que noy fajj soxlo askan bi donc mané élection bi bu am solo la waaw Khalifa Ababacar li ñu bëgg tek ci bobu Sénégal mais xam nañ aussi

faire du, faire du président Khalifa Abakar Sall le prochain président de la République du Sénégal. du moment où teg nañ ma fii teguñu ma fële xëcc nañ ma fii xëccu ma fële gisuma fii gisu amatuñu jot bobu on a plus de temps là té xam nañ ni li ñu am ci département bi billahi suñ ko liggéeyee 5 mois yi Khalifa jiitu. kon du ma séminaire bi fi ngeen ko teg foofu la li ngeen bëgg a la. élection bi nag première première première premier tour bi xam nga lan la c'est le parrainage premier tour élection bi c'est le parrainage ñun am nañ ay député mënoon nañ def parrainage par les élus mais mosuñu ko xalaat ci àddina parrainage citoyen ñun askan bi lañ moo ñuy parrainé askan bi on a deux mois dix jours pour réaliser un parrainage mémorable fii dans le département de fisc, xam ngeen ni xel c'est possible xam ngeen ni xel vous avez les outils vous leen génnee ci séminaire bi toog amatul il faut parrainer de façon triomphale le président Khalifa Bakar Sall ci projet de société bi nga xam ni ñu ngi koy junj dañu bëgg a xam waa département de Rufisque lan la ñu gëm ni mooy priorité pour Sénégal indi leen ci seen xalaat seen gis-gis ñëpp xam nañu ku wax département de Rufisque wax problème suuf yi am diggante Bambilor ak Sébikotane ak euh, Kër Ndiaye Lo foofu yëpp ak kam ak yëpp xam nañu problème suuf am na fa ndax suuf seen nit ñi doon béyee lañu foxati jox ko ay jox ko ñeneen ñi ñëpp xam ngeen ko wax département de Rufisque wax le la ville historique de Rufisque niñ ko bàyyee ba mu dégradé wu. ñëkk xam ne ku wax département de Rufisque wax cohabitation population yu bari ñi di def ak la centrale à charbon ak les usines sidérurgiques tout ça sont créés de pollution. yéena ma ko gën a xam xam ngeen ni ku wax département de Rufisque wax érosion côtière bi ni muy nangoo suñuy suñu suñu kër dama ni ko wax département de Rufisque wax niñ ko faté ba nga même bu conseil des ministres décentralisé jubee lenn rek lañuy wax moy lan lañuy investir biir mini Diamniadio du pas pas commune de Diamniadio biir un espace de 2200 hectares. nous sommes la plus grande superficie dans le dans la région de Dakar sur les 550 km, 60% sur nos départements. département wante bu département de c'est les 2200 hectares du pôle du pôle urbain de Diamniadio kon ni projet de société bi ko population est ànd ak ñun nous ñu jël président Khalifa président du Sénégal j'ai été un peu long mais dafa am solo ñu waxante ci yenn moment di di dellu di centre, de féliciter la présidente la la la présidente du comité euh, la départementale ni mu nimou ni parce qu'actuellement, l'élection élection bi la féliciter toutes les tous les membres de la plateforme Tarao Sénégal au niveau de du département de Rufisque aussi bien les gens du PDFPS des valeurs les amis de Vision les gars du PDSR les les euh, Motsali, waa MDIR waa que d'abord les amis de Khalifa nous ñëpp dans le cadre de la coordination départementale pour faire triompher le président Khalifa Ababacar yàlla ko yalla def jere ngeen jëf. jàpp nañu né buñ fi joggé képp ku tok fi doto wax waxu parrainage mais parrainage triomphal ngay wax pour le département de Rufisque kon monsieur le maire je pense que le message est excellent. Euh, ni nga xamante ne noonu la ñuy bëgg a defaree dëkk bi monsieur le maire député maire Omar Cissé moom mooy maire de la ville nit ku nekk fa nga jiite muy sa kër nga nekk fa yaakaar naa jafe-jafe yi fa nekk yëpp yow yaa ko gën a xam ñëpp parce que yaay dem fépp yaay daje ak ñëpp wante bu fekkee ne ñun ñi nga xamante ne dañu nekk taxawu ci plateforme bi ñun ñëpp daf ñu woo nañu dafa soxla kenn ku nekk sa xalaat loolu dafay wane ne xeebul xalaatu kenn te kii yeewoo ci commune bu mu mën a doon ci département bi xëj na yaa ngi fay romb wala yaa ngi fay gis wala xam nga fa loo xam ne boo ko waxee xëj na dina am loo xam dina yokk ci projet de société bi nga xam ne moom président Khalifa Sall war a wan sénégalais yi war a dem jaay sénégalais pour ñu fal ko incha allah cinquième président de la république du Sénégal le 24 février. kon nag dañuy def juróomi atelier kenn ku si nekk nag mën nga tànn atelier bi nga xamante ne foofu nga xalaat ne mën nga fa joxe sa xalaat atelier bu njëkk bi ñu ngi ko tuddee auto-évaluation de taxawu Sénégal département de Rufisque maanaam saytu ñoom dinañ saytu def diagnostic li nga xamante ne noonu la élection départementale yi demee woon ñu def bilan bi ñaata maire lañ ci am ñaata adjoint lañ ci am ñaata conseiller lañ ci am buñ ci paree ñu def élection législative wax nombre de députés yi ñu am wax aussi euh, lu ñuy wax soit donc muy defaale force yi ak képp koo xamante ne ñëw nga fekk ci taxawu Sénégal ci biir euh, ci ci fii lañ koy waxtaanee maa xam moo xam da nga ñëw avant élection locale yi ak législative yi wala da nga ñëw après yooyu tamit dañuy xool yan force la ñu boole ko ci beneen bi nga xamante ne moom la commission bi waxtaanee mooy vie des naka la communes yi war a fonctionner naka lañ ko war a animer bu ko defee ñu defaale force yi faiblesse opportunité ak menace kon ñi nga xamante ne ñoo bindu ci atelier bu njëkk bi ñoom liggéey bi la ñuy xaar ci ñoom atelier bu nekk nag dina am président dina am rapporteur dinañ ko wutal tour itam muy touru équipe bi suñu toogee liggéey li ñuy liggéey ba nopi après inshallah dinañ def dinañ def plénière ñu ñëw def restitution également donc lolu rapporteur bi mom moy ñëw euh, présenter liggéey bi nga xamantene mom la atelier bi liggéey euh, benen bi nga xamantene moy atelier bi ci topp moy massification et mobilisation moy alliance stratégique ñuy profito ci lolu di nuyu suñu mbokk ak suñu frère LD Debout yi nga xamantene ñew nañu déjà fekk fi ñim fi fekk ñep ci ay autorité fi lañuy ñuy parrainage euh sanu dañ ci wara yok sax parrainage triomphal légui lolu lañuy wax lolu moy suñu jargon après nak ñu def ben mise en place d'un comité d'organisation parce que lepp lo gis tam dañ koy dañuy seet nuñ koy jëmeulé am ay nit yuñ tekk seen loxo nga xamante ne ñoo koy doxal ànd seeg ñëpp beneen bi mooy dañuy élaborer un kit d'animation un kit d'animation nag buñ ko waxee mooy ñun nan la ñuy demee ci population yi euh, yan activité la ñuy def yenn action la ñuy def kenn ku ne xalaat boo ci am nga indi ko bu ko defee buñ fi jógee li nga xamante ne noonu la waa département waa commune de Rufisque Est wala Ouest wala noor di liggéeyee Non la yeneen commune yëpp yi nga xamante ne ñoo nekk aussi ci département bi la ñuy liggéey mais kenn ku nekk aussi mën nga ko adapter aussi si sa plan local sanu troisième mooy mooy projet de société bii mënoon naa ci bañ a wax sax ndax le député maire wax na ci ba noppi euh, dañu bëgg ñun département de Rufisque ni ñu xalaat ne ci secteur d'activité yëpp ne loolu buñ ko defaree fii mu am développement mu am mu bokk ci stratégie bi ñu jëmmal ko yónnee ko euh, président xalifa Ababacar Sall mu xam ne waa Tëngéej lii mooy seen contribution ci projet de société bi loolu nag dafa am solo maanaam moom mënuñ nañ toog bind ko yónnee ko ko mais dafa ne ñun ñun suñu biir nañ ko xalaat buñ ko xalaatee ñu bind ko buñ ko bindee tekk ci loxoom moom mu tekk ci loxo président xalifa Ababacar Sall ne que lii moy contribution département de que ci projet de société bi lolu un atelier bi moy atelier communication et moyens ku wax politique ku wax action politique di nga wax communication ñu waxtaan ci stratégie de communication bi waxtaan yan support de communication aussi yi nga xam mo am ci bir taxawu ak ci plateforme yi ak yeneen yo xam meun nañ ko utiliser wax aussi ci moyens logistiques yi sanu bi ci mujj nag mooy recherche de moyen kalaa naa naam da nga fay ne bii mooy neer de la guerre mooy que naka la ñu mën a def ñun waa département de Rufisque ba mën a am ay moyen muy ay moo xam ay koppar la muy lu mu mën a doon loo xam ne mën nañ ko indi ba nga xam ne dinañ mën a ku ñu teg loxo ñu dem ku ñu tegul loxo ñu dem mais en tout cas dinañu fexe ba indi moyen teg ay pexe yoo xamante ne dinañ teg ci taabal ji lu doy ci xaalis lu doy ci ay moyen yoo xamante ne dinañ mën a wax ne lii moom lañ nar a taxawoo mooy doon suñu taxawaay parce que ku bëgg a gañe nag ku bëgg li ñëpp bëgg foog nga def lu kenn deful loolu moo tax lu mel noonu chantier bu am solo la aussi ñu ciy xaar xalaatu ñëpp kon bu ñu defee atelier yi ba pare après nous def yëfu njóobeen rek bu ñu ba ñu def restitution yi canevas yi nga si restitution yi defar nañ ko atelier ordinateur rapporteur bi même modèle pour que après ñu mën restitution si benn document unique harmonisé donc loolu daal mooy li nga xamante la atelier après ñu def plénière échanger incha ñu bëgg nak ñëpp vraiment euh def ci pas-pas daf ko yité nak li ñuy joxé de kilifa lañ koy jox té buñ ko joxé kilifa bobu ci loxo kilifa la koy teg kon nak war nañ gor gor lu ba mën ko jox lu mucc ay lolu dal moy cadeau yi nga xamante ne maa koy wax ci turu comité scientifique bi nga xamante ñoo doon liggéey document stratégique bi te sa le maire Sanoumar jiite ko ñu ànd si ak la coronatrice Assoujal ànd si aussi ak ñoom Daouda ànd si kulim da ngay manquele ànd si ak Wassour sek moom itam mu joué si rôle bu am solo ànd le maire Abi Abi waroon na fi teew tey ànd si aussi ak Racine moom tamit liggéey na ci ànd si ak les coordonnateurs muy Mandiaye bi nga xam ne moo nord commune communal bu nord ak monsieur Momar mbay mi nga xam ne ko mooy coordonnateur communal Rufisque Ouest su ma juumul euh, wala ma fàtte kenn mën naa fàtte kenn parce que ku lim da ngay manquele te yoruma liste bi nii Awa Camara aussi mu may fàttali ni Awa Camara donc ñooñu ñoo composé woon comité scientifique bi toogoon waxtaan si jox ko maire maire validé ko ñu indi ko di ko présenté fii mbooloo mi ñu ngi leen di gërëm di leen sant ci déglu bi. Euh, euh, Aujourd'hui, nous sommes réunis dans le cadre d'un séminaire organisé par la coordination départementale de Tahaou Sénégal. Donc, coordination qui... C'est un séminaire qui porte davantage sur la stratégie pour remporter les élections au niveau du département de Fils, pour élire donc triomphalement le président Khalifa Bakr dans le département de Fils, notamment. C'est un séminaire qu'ils ont programmé depuis de, depuis de longues semaines. Mais je disais tantôt que c'est c'est la meilleure date pour organiser un séminaire. Pourquoi Parce que nous venons de démarrer l'une des plus grandes opérations d'envergure, c'est le parrainage. Vous savez que Tahoe Sénégal a pris à considérer le parrainage citoyen. Pour nous, ce n'est même pas une option. On savait qu'on allait faire du parrainage citoyen parce qu'on veut montrer que Tahoe Sénégal, dans le département à l'intérieur du Sénégal, est prêt à remporter ces élections. Et c'est une réalité. Donc, je disais que le séminaire est, venu vraiment à son heure. Pourquoi, encore une fois C'est ce qu'ils vont discuter. Ils vont discuter, bien sûr, de cette opération du parrainage. Parce que le département de Tahoe au Sénégal, a retenu de faire du, parrainage du candidat Khalifa Aboubacar un parrainage triomphal. Quand on parle de Tahoe au Sénégal, on pense que la source, c'est uniquement Dakar. Mais je dis que si vous faites le tour du Sénégal, vous savez que c'est une réalité dans toutes les contrées du Sénégal. Mais au niveau du département de Rufus, nous voulons réaliser un parrainage triomphal. C'est important. L'autre chose, vous avez sûrement entendu le président Khalifa Abouakrissal vous dire que le projet de société qu'il propose, c'est un projet formulé dans la co-construction. C'est très facile. On a suffisamment d'experts, nous, pour nous enfermer dans un hôtel et construire le projet de société. Mais ce n'est pas ça qui est important. C'est un projet de société qui sera formulé avec les populations. C'est pourquoi, durant ce séminaire, le département du fisc va formuler toutes ses propositions relatives au, projet de société. C'est quand même extrêmement important. Je vais vous en dire quelques éléments. Ils vont, ils vont le développer. Mais tout le monde sait que aujourd'hui, quand tu parles du département du fisc, c'est le plus grand département au niveau superficie dans la région de Dakar. Mais quand vous interrogez les projets de l'État, tous les projets se, trouvent où dans, le petit, dans la petite surface du pôle urbain de Diamniadio. Et ils comptabilisent ça comme département de refus. 360 km, vous prenez 2200 hectares, peut-être 22 km, et vous dire que tout ce que vous consacrez là-bas comme des centaines et centaines de milliards, c'est ça le département de refus. Ce n'est pas le département de refus. On ne peut pas parler du département de refus sans parler de la question foncière. Regardez aujourd'hui ce qui se passe dans les communes de Sangalkam, de Bambilor, de Yen, de, de L'accaparement foncier. Ces populations qui, depuis des générations, pratiquent l'agriculture, l'horticulture, aujourd'hui se voient dépossédées de leur, de leur terre uniquement par un mécanisme de spéculation foncière. Donc le foncier, c'est vraiment une réalité ici. Regardez le centre, historique du département de Rufisque. C'est la ville de Rufisque. Cette ville, qui est une ville d'histoire, qui a tout donné au Sénégal, regardez la situation dans laquelle elle, se trouve. Depuis, au moins depuis, presque 60 ans. C'est un défi majeur. Regardez la question de la cohabitation avec des populations de Barni, avec toutes ces unités polluantes et à risque. Le, la centrale à charbon, le, pôle sud de Mais quand même, c'est des sujets extrêmement importants. Vous n'êtes pas sans savoir aussi que notre département fait face à une, une érosion côtière extraordinaire. Donc aujourd'hui, que notre département formule des propositions par rapport au projet de société du candidat Khalifa Ababakar Sall, c'est ça la co-construction. Bien sûr, ils vont développer comment nous allons travailler durant cette période pour mobiliser toute la communauté du département de autour de la candidature du président Khalifa Ababakar Sall vous démontrez que le séminaire est bien, est bien arrivé, c'est l'objet de ce, de ce séminaire. Le séminaire va discuter en atelier sur des questions essentielles. Un, sur le projet de société, j'en parlais tantôt, sur comment faire du parrainage triomphal pour le candidat Khaled comment mobiliser et communiquer, comment aussi chercher des moyens pour tout cela. Donc il y a cinq thèmes qui seront développés et comme vous le, vous le présagez, nous, nous sommes des adeptes de la participation. Nous sommes des adeptes de l'inclusion. Nous avons suffisamment de ressources, intellectuelles. Mais c'est pas ça qui. Le pays, c'est pas uniquement ça. Si il y a donc l'inclusion est notre sacerdoce c'est notre marque c'est pourquoi ce séminaire là qui réunit des participants venant de toutes les 11 communes du département va réfléchir sur ces questions là et nous proposer ce que pense le département de par rapport à tous ces enjeux que je viens de décliner tantôt. Donc le séminaire est arrivé à un moment extrêmement important. Quand le, projet de société du candidat Khalifa Abakar sortira, vous verrez qu'il a été construit aussi bien par les différents départements du Sénégal, y compris la diaspora, toute l'élite de Tahaou Sénégal, tous les responsables, les maires, les députés, toutes les identités remarquables auront contribué pour que Qu'est-ce que ça va se passer C'est ça qui va faire que les Sénégalais vont s'approprier le projet de cette société. Nous, ki boo bëggee mu gis boppam ci li nga bëgg a faire dafay fekk nga boole ko buñ buñ naan lii mooy problème yi duñ ko waxal kenn lii moo koy faj luñ l'inclusion est la marque et notre identité au niveau de Taxawu Sénégal maintenant vous savez le choix de on est le choix du, du, candidat Khalifa Bakarsal. Pourquoi Tahaou Sénégal est une plateforme Tahaou Sénégal est une plateforme et le Sénégal aurait pu être un parti. Pourquoi c'est une plateforme ça, démontre clairement que celui qui est porteur de cet idéal Tahaou Sénégal est un adepte de l'inclusion et de la pluralité. Le fait que on aurait pu facilement construire un parti. C'est facile. Pourquoi on n'a pas fait Parce qu'on se dit, d'accord, nous partageons des valeurs humanistes, des valeurs socialistes, pas, du parti, pas uniquement du Parti socialiste, mais des valeurs socialistes. Nous partageons des valeurs de gauche, nous partageons des valeurs écologiques. Mais beaucoup de, beaucoup de réalités les partagent. Des partis les partagent, des mouvements les partagent, des mouvements citoyens les partagent. Donc, comment faire à ce que toutes ces entités se retrouvent dans l'idéal que nous avons, dans cette démarche que nous avons C'est pourquoi on en a fait une plateforme. C'est pourquoi vous allez voir le Dr Oumar qui dirige Vision Sénégal au niveau de la plateforme. Vous allez voir le président euh, Ndiaye, PDCR, qui est dans la plateforme. Vous allez voir les gens de la, du PS des valeurs. Vous allez voir au niveau du département. Nous avons une conférence des leaders au niveau national où je suis très actif. Mais au niveau de tous les départements du Sénégal, vous allez voir à l'échelle de chaque département une conférence des leaders. Parce que quand nous allons dans beaucoup de départements, nous avons vu des leaders dans ces départements qui disent qu'ils veulent travailler avec nous. Vous avez Mdir qui est là, avec le président de Massek. Vous avez le mouvement de, du président Morsal Diop, qui est très actif au niveau, au niveau de, de Bambilor. Vous avez aussi les, les, les, les amis, du maire euh, Papsou, qui sont dans qui, font un, immense travail. Vous avez le maire Hassan Kassé avec ce mouvement, qui sont tous dans Tahou. Donc la réalité de la plateforme montre que c'était opportun d'avoir une plateforme pour que chacun puisse se comprendre et s'identifier au niveau de Sénégal. C'est pourquoi nous allons, à partir de cette démarche, construire tout ce que nous allons faire dans, le département du FISC Et, le FISC va donner le ton. Et tous les autres départements aussi vont le faire. Et nous aurons, in fine, nous travaillons pour un parrainage triomphal du candidat Khalifa Ababakar Sall. Je vous parlerai de, notre candidat dans d'autres sorties où je vous démontrerai pourquoi le président Khalifa Ababakar est une solution pour le Sénégal. Je l'ai suivi quand il était maire de Dakar en 2009. Moi, j'étais là aussi, à la tête de Vision Rufusque, comme la force nouvelle au niveau de la ville de Rufusque mais j'ai dirigé mon institut, l'Institut africain de gestion urbaine, et je le voyais poser des actes dans la ville de Dakar. Je vous démontrerai comment ces actes-là le prédestinent naturellement à diriger et à changer le Sénégal. À diriger le Sénégal avec les Sénégalais et à le changer. Je vous en parlerai longuement. Pourquoi C'est aujourd'hui une réponse et une solution par rapport à la situation que vit le Sénégal. waaw li ma sànq rek li ma wax ci nasaraan dama ci dama ci dellu soit tuuti ci ci ci wolof euh, solo ndaje bi nga xam ni waa coordination départementale bi ñoo ko organisé nga xam ni madame Astou Dial madame le maire Astou Dial mooy jiite coordination départementale bi Chérif sunu xarit Cheikh Samb topp ci ak coordinateur communo yi ñu am ñëpp ñoom ñëpp ak comité scientifique bi ak toutes les tous les alliés de la plateforme taxaw Sénégal yi nekk fi

ñàkkuñu borom xam-xam pour tëju bind bind projet bi gën a bi gën rafet ci àdduna bi xam nga PSE ñëpp ñëpp xam nañ ni li ci waa ñi dul sénégalais wala ñeneen ak ñeneen def ñun waa Sénégal dañ toog dañ xëy suba rek ñu ne ñu PSE. président Abdou Karim ne projet de société bi muy construire mook waa Sénégal ñoo koy construire ndox lan moo ko nar a jëmmal fii mooy waa département bi ñoom dañuy waxtaan seen biir ci atelier bi.

enjeu ah, bu am solo la parce que département de Rufisque moy tay ji ci région bi mo fi dese suuf am 60 du territoire de la région tay yéen ñëpp xam ngeen ni boo laajee état bi fan la investir ci département de Rufisque mu limal la ay ay centaines de centaines de milliards xam nga fan la ko def ci 22 km carrés yi nga xam ne moom mooy pôle urbain de Diamniadio mais ñu ne len département de Rufisque 360 km carrés la mo gën mak ci ci région de Dakar kon kay ça veut dire que ñom am nañ seen priorité lolou du suñu priorité ñun. ñun suuf si suñu priorité la sunu mbokku bar ñi li ñuy dund ak centrale à charbon bi usine sidérurgie bi loolu loolu suñu priorité la ñun érosion côtière bi ni muy yàqee Tëngéej bar ñi sendu yeen mais loolu suñu priorité la situation Rufisque nga xam ne mooy pôle istérigu gu Sénégal Rufisque mooy pôle istérigu gu Sénégal ñu bàyyi ko à l'abandon du yemuñ ci loolu dañ nan maire comme maire opposition la fuñu tek maire matul un milliard sur sel xam nga kon kon priorité Nous nak ay priorité wa dañ projet de société wu président Khalifa abakar Sall ndax ñu xam nañ ni ki ñi inclusion dafa gëm participation parce que humaniste la dafa jël nit teg ko ci kaw dafa neex àndal kon projet de société bi ñu bi bi a jukkee ci wa bi waa taxaw Sénégal nar a indi incha allahu rabbi département Sénégal yi dinañ gis seen bopp diaspora bi dina gis boppam. waaw sànq ma wax nga dëgg. moo tax may bamtuwaat rek ne ndaje mii moom dafa dafa ñëw moment bi mu war a ñëw xam nga démb rek ñu ngi joxe fiches yeeg yooyu ñoom ñu ñëw ci département bi yëpp ne léegi ñoom waxuñu parrainage parrainage rek de dañuy parrainage triomphal xam nga ba ñu ba ñu nekkee génne changement yi parrainage optionnel Nous avons peut-être au Sénégal un parrainage par les par les élus par les députés nous am nañ limbi nous askan bi parrainé président Khalifa Nous Sall ici, département du Fisc. bi bi bi séminaire de Nous sommes am stratégie un parrainage triomphal ñom dinañ ko benn bi donc wax naa ko sax mooy wax ci parrainage bi projet de société bi nga li ma ci ni projet de société bu développement au Sénégal waxuñ ci donte xam nañ ni ñëpp sénégalais yëpp yëpp Khalifa Sall mu ci seen xol mais fu ñu dem ci ah donc mobiliser leen communiquer mais nag waaye xam nga ne lo loo mënti def ci aduna bi xana di nga soxla koppar di nga soxlay moyen di nga soxla logistique bala ngay wax ci ñent ñooñu ñep bax na nga jangat taxawayu taxaw Sénégal depuis au moins ces cinq dernières années nga gën ci fësal depuis les élections locales depuis les élections législatives ba légui lan moy dund ni wa taxaw Sénégal ci département bi xam nga ñent ñi kenn mënu kee baña wax ñom loolu lañ bëgg a dajalo tay tey waxtaan ci génn ñuko bu ñuko ko nak ci biir orientation taxaw Sénégal la la na la nar jëm kon loolu moy solo ndaje. delu dellu di leen féliciter di féliciter le président paté mom il est membre même de la de la conférence des leaders au niveau national. décision yu bari au niveau national dañ ci liggé dañ ci liggé ensemble. il sera au cœur de ce que nous allons faire dans ce département parce que donté mi au niveau national mais il est aussi au niveau départemental c'est comme moi, je suis au niveau national a énormément de responsabilités, mais je suis au niveau départemental on a fait, Fi li gars li wa Sénégal indi sax xam nga tax ñu koy décentraliser la conférence des leaders les mën nga wax leader ci département de Rufisque génne ci au niveau de Bambilor mën nga wax leader génne ci euh, Demba Seck Ndir bu mën nga wax leader génn ci le maire Alpha Bokar Xuma Pape Sow mi nga xam ne arbitrairement l'état l'a confisqué parce que uniquement ñu ngi doon xalaat par rapport ak élection yi nar a ñëw moo tax ñu ne dañ ko faagaagal te teguñu ko ci dara mën nga wax leader génn ci le maire Assane Kassé qui le maire de la commune de Rufisque Nord mën nga wax donc mën naa leen limal mënul limal léegi du jeex kon les amis de Khalifa parce que boo limee gamee boy rek lim nga ñëpp ndax ñii bi ñu dund Khalifa ça fait 60 ans pour être pour être minimum ça fait 60 ans quand li njëkk def département de la conférence des leaders au niveau départemental et le modèle que ngeen indi c'est appliqué au niveau de tous les 46 45 y compris la diaspora 46 départements du Sénégal 46 départements Nous avons fa une conférence des leaders au niveau départemental le département c'est un leader qui est là-bas qui a remporté d'énormes victoires et qui veut uniquement travailler avec au Sénégal kon loolu dafay wane ni vraiment encore une fois pour conclure ce séminaire bi, Mon séminaire bi, c'est le premier acte presque de au Sénégal à l'échelon national ce séminaire de Rufisque là on se rappellera il y a un am acte ñu ah, on se rappelle de la déclaration de Rufisque on se rappellera ce séminaire de Rufisque là parce qu'il montrera la voie à tout le Sénégal, à tout au Sénégal, que pour faire triompher le, président Khalifa Abou on va partir de ce séminaire-là. Yalla